tafsindike foota ganjoliya nasban wa maskanan jali wa kuna julasan ala masjidi seydi tafsindike mu nga fekk limaamu kambaleen bu jëkk ndax moom li bàyyi laay di woote yëpp mu bàyyi laay na laa ilaha illa allah la ilaha illa allah wax nga waxee rek ba ne la ilaha illa la mu ne maa nga saw ba bu ko waxee rek bu ba lay tekkee si yow wax mu nekk ca mu nekk ca ah, ca ca gànjool naa maa nga saw ba ba bi bàyyi ba dem kàmbaleen foogoon na yan bi moo koy yanu mu ànd ak juróomi taalu bàyyi jibril njàng ilimaani yof ji ca la soo maam taf sindike moo ko moo ko tafsiral fekk lu jiitu loolu ña doon tafsiral si sàkkal gulee sawatu ndar si benn taatu daqaar ba mu leen tafsirale ba àggal booba tafsir njagga géey bi yo nekk yoof mu nga sa mbooloo ma ñu laaj ke limamul madi mu ne at mi ngeen maka laaje tam xarit ji feeg juróom-ñaari tam xarit na feñ waye nak am fa ñenn ñu mu ne leen yéen ñi di ngeen bokk yoof ngeen dëkk waye di ngeen bokk sa ñakkay weddi ba nga xamantene wax na leen loolu te mu bàyyi laay woote ne mu ñëw wuyu ci ka kàmb leen te toog nag sa ëttu Baay Laay fekk Baay bu daan julli tisbaar dañ koy jël sikkar jiital kaak sikkar ba jàkk ja <clears throat> bu si jullee ba pare ñu delloo ko bu takk saan jotee ñuy jiital ko noonu leen daa def itam sëy naay saa si jamono Baay Laay romb ko jëm jëm jàkk fekk fi mu toog rek Baay Laay Baay Laay ni ko ëpp rek mu ne nga lañ daanu dee ba mu daanoo dee a ah, yàgg na fa bàyyi laay romb ki julli ji tisbaar ñibbisi tàkkusaan bàyyi laay julli ji tàkkusaan dellu si timis bàyyi laay julli ji timis dellu si mu tëdd rek gée ba sa subas ñaareel sa sa fan ba bàyyi laay romb ki jëm jàkk mu tëdd rek taalibe yi daw euh, dëkk bi bàyyi laay malaan mi mu yoroon bàyyi laay upp di fagasu bàyyi laay waaw taf si ndikkee fóori ji yow xam ne nekk ci faat benn waxtu ak bàkkaar bi ci nekk nga faat juróomi waxtu nan nga koy laayoog sa boroom mu daal di ñettaloo si bàyyi laa ne ko waaw tafsir yow nan nga suute doomu aadama yi mu nekk lu yàlla binde lu yàlla bind rek sute naa leen ña doon sute suuf bàyyi laa ne ko waaw yow nan laa la sute mu ne ko sute nga ma ne asamaan sute suuf bàyyi laa ne ko tafsir du yow nag waaye bu ma yàlla yónniwul woon ci nit ak jinne yow mii da yàlla yónni boo demee ci isaal jaal ma nga fa walaw lam akuni bi am li yasa la kaana li tafsir bi amila boo demee ci kitaabul usul fi ilmu nusoosir di nga fa foofu ka fekk bàyyi laay di wax ak moom naka bu ma yàlla yónniwul woon yow mi la yàlla yónni si nit ak jinne bàyyi laay ne ko waaw yow tafsir xam nga ma mu ne ko xam naa la bàyyi laay ne ko foo ma xamee mu ne ko gis naa jibril fekk la si mbaar mi jël la làq la si laafa ndi jooram جوس جبر فاتي لا اختلاف وشامن دمك يا بني تيل عثما جوس جبر سيس أولس نك توغل في خار سيدك بمجيل لسلك دمك يا عثما جروم يا بين عندك يا خبرم كوكو موي تفسير نك يا تيون لين يوسي جمان أكاد الدنيا بين عالم إلا مولد في جنس الخوايا وعين ورخوص فاخر atta miraaran nga xam ne bàyyi laa ñi ko topp du ñu moroomi ñi koy ponto billaahi wallaahi tallaahi tax ni ko jëw na fi juróom-ñaari jamono suppaliku na fi gaynde suppaliku na fi segg suppaliku na fi nag suppaliku na fi yeew suppaliku na fi njanaaw bu bu mujj bi golo la nekk fii ci xànqur xànqur bu nekk ba kër Abdou Aziz jëm faa nële foofu moo doon xànqur ay darkase rek moo fa nekkoon benn rëbb moo doon moo doon rëbb bu ko jam benn nja rab bal ba mooy dal sa golo go golo ga dee taf si ni ko jéexal si rab yi judd nag ci moo tax am na ci kilifa gu mag du ma tudd ma ndax bokkuñu secte te comme damay nettale rek mën nañu kaa gisee neneen muy waranteeg taf si ndika ne te si ndika ne ka maala mag mu ne kaa maala mag taf si ndika ne yow xanaa xamuloo bi nga juddoo xar mi sa bàyyi rey si sa ngénte mu ngi ko jëlee ci ci euh, gétt sàngam daal ka ko wax melokaanu xar wa ñëkkat sa sa yow si yow sax ruu jigéen la ñu def si yow jabari yonti yàlla ayoba rahmata room la ñu jël def si yow moo tax nga bugg àddina mu nekk kon yaa ma mag te sindika moomu suppaliku na fi yooyu di xaar leeru Seydina Limaam moo tax ba seeni laa limaam moo woote mu ñëw nag ne seet ki woote ba yan bi yanoowu ko dina seet kooku mooy kan moo tax bi mu ñëwee fekk Seydina Limaamu mi moom mu daal di jébbalu daawul toog ak Seydina Limaamu nag ndax ne na Limaamu ku toog ak moom leer gi nekk ci moom dafa dafa foor lii li dal gaa yi léegi taalibe yi léegi bu ñu toogee ak sëriñ ci di ñu wut ak jege jàkkaarloo ñoom sis te sëriñ boobu bu fekkee ne am na leer guy xëcc day nangu sa leer te leeru bàyyi laay leer boo xam ne ku lu sa leer foor foor bu la jigéen ñëw daf koy xëcc te suñu kaba su toog a bàyyi laay jàlloog moom mukk ginnaaw xanaa keroog ba muy fóon loxoom day toog rek wala mu toog sa ginnaaw ñu ne ku jàlloog moom rek mu nangu sa leer moo tax daawu fi yàgg bu toogee jamono rek daal di dellu gànjool moo daan toog. nga romb ka di jigéen am ñeenti at wala juróomi at mu woo nga ñëw mu ne la yaayi diw nga ne ko ay góor gi ma dama am jëkkër ba nga ne maa yaayi diw mu ne ko di nga jur diw diw diw diw yaa ku ñuy wax diw yéen kay koy jur diw mooma dina nekk yow nangame at at sàngam lay génn àddina feebar sàngama kay rey daf si ndikk te kooku si naa limaamu la yaakaaroon kilifa yi fi nekk yëpp sëriñ si fi nekk yëpp dem ci ñoom seeti na sëriñ Touba di ko xool ne am nga ñetti leer am nga leeru fóore am nga leeru wàlliyu boo demee si jamono ba noppi woyatuloo si tefesi géej gi yonente ngay dee te ëllëg ci dekki si diggante yonte yàlla Ibrahima ak Daawuda fa ngay dekkee yow sëriñ Touba mu dem si dem si Cheikh Sadou Abi nekk am nga ñetti leer am nga leeru fóore am nga leeru wàlliyu am nga leeru shérif ñenn ñi seet na leen ne leen du ngeen wàlliyu de fóore jumaanu ngeen kooku tef si ndike daanaka def daana toog ak di leen xool ba mu yàgg kenn ku nekk mu wax la martaba ba nekk ci yow toog na bés si jàkki bàyyi laay waxtu tàkkusaan di di waalaate di waaraate ba mu yàgg malakal mawti romb fa jëm ngàppalu mu ne malakal mawti romb fi mu nga jëm ngàppalu diw ak diw lay jël si waxtaan woowu mu ngi ko def saan bi timis jotee tàgge bi ñëw ne diw ak diw génn na àddina toog na ak bàyyi ci jàkk ji lay suba sa pestu set ba jibril ñëw di andi dossier bu pestu set ba wax ak Baye Laye ba pare di dem tàllal loxo Baye Laye Baye Laye di ko ñaanal Tafsir di ko tàllal loxoom te moom Baye Laye rek gis eh, eh, Jibril ne ko moom gis na Jibril mu tàllal loxoom Baye Laye ñaan ba pare mu raay Baye Laye ne ko yow looloon tàllal sa loxo mu ne ko